fii ci kër Modou Lo si bi nga xamante ni fi lañ daal di nekk lépp en direct ba caaxaan na de gare bi kër Modou Lo ni moom moo di foofu caaxaan national ngeen gis ñi nga xamante ni ñoom ñoo ànd ak Modou Lo nga xamante si nii ñoom daal nañuy pare daal nañuy pare jamono ji ngir ànd xamante ni moom moo di Modou loo ngeen gis te li bëri comme ni ñu ko defee rek saa su génne sarax yi lu ci mel ni glace moom dañ koo bëgg euh, nga jël gis à chaque fois bu ci mbër amee combat jamono jile saraxu sax glace bokk na lu ci ni ñuy génnee nga gis mu toll nii ñoom jege ñaale yi li ñuy génnee moom moo di sarax yi fi toll nii di jamono ji fi nga xamante ni moom moo di ci buñ kër Modou Lo moom mooy heure sarax yi fi mu toll nii dafa daal ki nga xamante ni moom moo di seen mbër daal di ñëw ñu daal di ànd ak moom daal di wutali fa nga xamante ni moom moo di foofee ci arène nationale loolu ngi noonu ñu leen di dëkkal nga xamante ni moom moo di fii ci Parcelles Assainies ci kër Modou Lo départ bi nga xamante ni si Modou Lo dina ko amal donc ba léegi si moom ak seegul moom fi nga xamante ni moom moo di ci këram moom moomee di Modou xarañ Lo nga fii ci Parcelles donc mu ngi noonu loolu la ngeen di dëkkal en direct sur la 2A TV ngeen gis ñoom jege ñaale yi ñooñu ñi nga xamante ni moo di mbokk yi aussi ñu ngi amal li nga xamante ni moom moo di génnee li nga xamante ni moom moo di sarax yi ku sa nekk yaa ngi koy génnee li nga xamante ni moom moo di sarax yi nga xamante ni war nañ ko génnee avant mbër bi di dem moom moo di loolu ñu koy génnee jamono ji ne ñu gis tamit ñi mu daal di jege glace bu bari loolu aussi ñu ngi noonu di nekk fépp ay barrière daal koy yaatal ba espace bi gën daal di bari li nga xamante ni si moom moo di ñoom li nga xamante ni ñoo ànd ak Modou Lo war a wutal fa nga xamante ni si nii moom moo di foofee ca arène nationale bu daal di janoo ak nga xamante ni si ni moom moo di Siteu ci combat royal bi nga xamante ni moom moo war a di am incha allah rabbi foofee ca nationale bi nga xamante ni si ni moom moo di waa ci nekk mi ngi def li nga xamante ni si moom moo ko daal di war ci mbir mi donc mi ngi noonu ku ci nekk mi ngi daal def di ko war ci mbir mi ñu war a génne sarax yi ñu ngi koy def ci a def leneen tamit yaa koy def ñu noonu ci kër buntu ci buntu kër xarañ loo ci parcelle ñoom ñi nga xamante ni ñoom la àndal fi mu toll nii ak gone yi war nañuy fees dell fi nga xamante ne si ne moom moo di ah, fii ci ah, nga xamante ni moom moo di buntu kër Modou Lo bi nga xamante ni si moom lañ war a yóbbu jamono ji ba fee mooy ci arène nationale donc mi ngi noonu mi ngi noonu ngeen gis que ni ñoom daal nañuy am mbégte wóolu aussi ki nga xamante ni moom moo di seen mbër bi Modou Lo ñu ngi baax ki nga xamante ne moom moo seen mbokk Modou Lo moom mi nga xamante ne moom ñoo ànd moom te xamante ne si moom moo di wàccaayu mbir mi wàccaayu làmb mi ngi noonu ñu jaajëfal leen bu baax a baax ci ànd bi nga xamante ni moom ngeen ànd ak ñun ñu dëkkale li nga xamante ni moom moo am fii mooy spectacle bi am fi nga xamante ni moom moo di ci buñu kër Modou Lo li nga xamante ni war na ànd ak ay supporteurs jamono ji daal di wëy daal di ànd ak ñoom wutali fa nga xamante ni moom moo di foofee ci arène nationale mu wutali fa xamante ni fii moom moo di foofee ci arène nationale ñeer combat bi nga xamante ni moom moo war a ci digganteem ak ki nga xamante ni moom moo di Siteu combat royal bu nekk combat boo xamante ni si comme d'habitude rek dañ koy xaar depuis mu taxaw ba léegi ñu ngi xaar li nga xamante ne si ni moom moo di bile combat ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo faree fi nga xamante ni moom moo di parcelle moo tax tey dañoo teel a ñëw wala bu nga xamante ni moom moo seen mbër bi Modou ak moom ba fa nga xamante ni moom moo di ci arène nationale ñu ngi noonu en face suñu kër gi nga xamante moom moo di Modou Xarañ Lo ñun di am sécurité bu am solo buñ teg ci buñ kër gi xamante ne def nañ ci ay barrière ay jegeñaayam xaw si aussi te ku bokkul ci ñoom rek doo fi am accès dañu ko làmb dafa sacré nga xamante ni ku bokkul ci ñoom doo am accès fi nga xamante ni moom moo di fi nga xamante ni moom moo di ci bundu kër Modou Xarañ Lo fi mu toll nii donc mu ngi noonu mu ngi noonu fi mu toll nii mbooloo mu tax ko takku moom mu nekk fii war a ànd ak Modou Lo fi mu toll nii jëm fa nga xamante ni moom moo di ca parcelle dina fi passé daal ki nga xamante ni moom moo di seen doom ki nga xamante ni si moom moo di Modou Lo mu war dem jàkkaarloo ji ak ki nga xamante ni si ni moom moo di Siteu euh, foofee ca arène nationale mu ne combat royal boo xamante ni doon nañ ko xaar mu ne combat boo xamante ni si doon nañ ko xaar gis noonu mu nekk liggéey bu am solo xamante ni moom Modou Lo ko def fi mu toll nii mu war a ànd nga xamante ni si nii ñoom ñoo di ay jegeñaale war a wutal ko nga xamante ni si moom moo di foofee ca arène nationale ngir daal di nga xamante ni si nii moom moo di euh, côté bi Siteu war a jënd waat nga xamante moom moo di foofee ca arène nationale mu nekk combat royal ndax moom day téye waaye ba léegi wala sax xëy na ki nga xamante ni moom moo di euh, Siteu dina ko daal di jël ci moom ban moo ci am lépp dina leer tey incha allah foofee ca arène nationale ñoom nag dañuy pare pour le moment ñu ko pare ngeen gis ñu noonu ngeen nga xamante ni ñoo ànd ak ki moo di Modou wala wutali xamante ni si moom moo di foofee ca arène nationale lu ko ñu war a wutali foofee ca arène nationale ànd nga xamante ni moom moo di seen bër du Modou Lo ngir yóbbu ko mu ànd ak gis que nga xamante ni moom moo di fii ci bunt kër Modou Lo ngeen gis mbooloo bi nga xamante ni moom moo fi nekk donc daan nay nekk mbooloo bu bare bëri bëri ñi nga xamante ni ñoo pare pour daal di ànd ak ki nga xamante ni Modou Lo ngir daal di koy yóbbu ki nga xamante ni si moom moo di fa ba ci arène nationale ngir mu daal di janoo ak si dëkk bi le combat comme ni bi manifestation yu bëree da ngay gis que ni dafay noonu ngeen gis ba tey ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa kër Modou Xarañ Lo fi mu toll nii nañu ànd ak moom dañu gis benn saa yu bëri ñoom ñëpp dañu ñëw ànd ak moom gis tamit la présence de la police nationale hymne national moom surtout que doon gis xale yi da ngay xëccoo sarax sax doon gis ñu xëccoo sarax si loolu lu mu ay mbuuf la ay mbuuf la ñu def ci sarax fu mu toll nii ñu koy xëccoo ñu koy xëccoo fekk lu nekk ci mbuus yi ci mbuus yi fois ñu ngi koy xëccoo mbuus bi ñu koy xëccoo métti na mais ñu ko ni xëy na ay firwee ci nekk xëy na ko xëy na ay firwee ci nekk ba tax ñu koy xëccoo ah bu nekk ci mbuus yi en tout cas ay mbuus jaune la ñoom ñu ngi xëccoo li nga xamante ne mooy mbuus ay mbuus ay mbuus la ñuy xëccoo mbuus yi ay mbuus la ci nekk ñu koy biscuit bisco lañ def ay mbuus yu bëree bëree bëri moom la xale yi doon ko noonu ñu bi la xale yi doon nekk ci baaxoo ak làmb ñu ko loolu dafa làmb ñu ko dafa li nga xamante ne si moom la xale yi di xëccoo noonu bu nekk biscuit nii xamante ne si nii moom mooy la waa kër Modou Lo jamono ji di génnee mu nekk sarax yi nga xamante ni si nii moom la waa koy Modou Lo yi di génnee mu noonu comme niñ ko defee saa su gis barrière yi nga xamante ni moom lañ fi teg ngir bañ nga xamante ni moom moo di mbooloo mi dina bañ daal di am accès ci kër gi donc ñu loolu kër Modou Lo la ñu nekk jamono jile ko kër Modou la ñu daal di nekk jamono jile Modou Lo fi mu toll nii mu ni nii moom ñoom pare nañ ñoom nga xamante ni mel waa parcelle ngir ànd ak moom yóbbu ko sama xamante ni di foofee ca arène nationale bi dox am jëm ak Siteu combat nga xamante ni moo di Siteu jàpp ne moom li nga xamante ni moom moo di bile euh, couronne koo bàyyi waaye ki xamante ni moom moo di kii di Siteu aussi couronne bi aussi warul neen nga koy fi nga xamante ni moom moo di foofee ci jàmm gën yóbbu ko gën waar waaye waa parcelle nee nañ ko buñ la may loolu donc ana ñoom ñaar kat moo ci am ndam ana kat mooy am ndam nekk loo xamante ni nekk na loo am solo combat bu neex bu ñuy xaar tey ci ngoon incha allah foofee ca arène nationale bu diggante Modou ki nga xamante ne moom moo di Siteu donc mu nekk lu moom solo mu nekk combat bu solo bu ñuy xaar foofee ca arène nationale bu loolu nekk lu am am solo ñoom tarkindaay aussi te benn côté ba ñoom ña ngay wax ni aussi pare nañ waaye waa kër Modou aussi ñoom it nee nañ nañ ngeen ab boo léegi noonu jàppoo loolu ay sarax lay def te ay sarax lay def ñu moo nekk ci boolu bi ñu noonu ñu noonu booli boobu ko jàppoo yóbbu rek ñu ngi fi nga xamante ne moom mooy fii ci parcelle moo di fii ci parcelle euh, ànd ak ki nga xamante ni si moom moo di Doké di Modou Lo jaga bu weex bi laa ilaaha illallah mu ngi noonu mu ngi ko Modou Lo mu ngi noonu mu ngi ko mu ngi noonu moom Modou Lo nday saar kolo dama topp ca ginnaaw moo def xar ba koo Ndiaye yaa ngi noonu nga rivéré Modou Lo bi nga xamante ne moom moo di la seen i. waaye ilaaha illallah ngeen mu àndal waaye juri ba ñu jugee ba nga xamante ne moom moo di Lac Rose moom daal di ñëw jóge na fa nga xamante ni moom moo di foofee ca Lac Rose ba nga xamante ni fa la waajalee combat bi daal di ñëw fii ci Parcelles Assainies léegi léegi la yegg si ngeen gis mbooloo mi nga xam moom la àndal xale yi gan nañu kontaan bi ñu gisee ki nga ni moom moo di Modou Lo jóge Lac Rose ba mu waajalee combat bi ñëw fi nga